cas boo xamante ne bi cette fois ci damay bàyyi politique bi nag dugg ci people donc muy euh, li ñu gis keroog euh, ci kër Abdoulaye Diop xaas Sumbulu Mbaye Koutia donc benn vidéo boo xamante ne bi def na tuuru euh, monde bi quand même Sumbulu mu jàkkaarloog mbay Koutia vraiment di ko di ko Euh, mën nañ koo tuddee humiliation parce que quand même boo nit déplacé woo ñëw sa kër alors que nga yàq ko lu mel ni xamee parce que jusque mi ngi doon réglé ak moom ay comptes am yoo xamante ne bi amoon nañ ko di ko wax ne ko euh, bi ngay toog di ma yekkalu ma su ma la gisoon bon maa koy faj wala sama doom ji parce que sama baayu doom nga yekkalu bon c'est vrai que Soumboulou amul lu ko neex ci Mbaye Kouthia par rapport ak wax yi nga xamante ni doon na ko wax yépp par nag yàlla nattu Mbaye Kouthia mu dem kër Abdoulaye Diop xaas ngir jubóog Pawlish mi nga xamante ne bii moom la doon xeexal ñoom dinaa ñëw xaj na ci seen problème mais d'abord vidéo boobu nga xam ne def na tout le monde bi ñenn ñi quand même ñu apprécier Euh, ñeneen ñi ñu bari la majeure partie apprécié wuñu la réaction de Soumboulou parce que quoi qu'on nee nañu nit bu déplacé woo ba ñëw sa kër war nga mën a fàtte quand même coow li nga xamante ne bi moom ngeen jote woon nga may ko jaamu parce que nit kenn du ko humilier ñooñu ñenn ñi noonu la ñu gisee ñenn ñi quand même gis nañ ne Mbaye Kouthia vraiment il mérite ça donc moom mooy ruube booy ruubee nit ba fekk ko këram nag yoon la quand boo ruubee nit yàgg a wax ci nit lu ñaaw ba am dem këram donc boo demee yoon la mu toroxal la di Mbori d'abord wala Ngone. Mhm. man xamal lu ma siy wax. Mhm. dafa am benn kasetu Youssou Ndour. Mhm. dama bëgg ñu wëraat ko ba gis ko. daa di effacer benn wayam. benn woyu Youssou Ndour. xam nga mooy ban way. bu ma daagoo ba ñëw sa kër li la war mooy jéem a teral. boobu foog ñu effacer ko. <laughs> ñu effacer ko. waaw dañuy effacer way boobu. Ah. waaw. xam nga lu tax ñu koy effacer. da ngay boo comme ça déggatuñu woy woowu tollootuñu foofu. parce que tey ma wax la benn affaire euh, Bamba. nit ki saa bu doxee ba ñëw fekk si la yow. yaa ngi dégg. Mhm. rek loolu dafa dafa dafa am lu muy dafa am lu muy junj. Mhm. ba pare tamit euh, ma wax la benn affaire dama koy waxaat sax mhm. gis nga jamono yële paase. Abdoulaye Diop Xaas. dafa am lu yàlla defoon ci Pa Mansour Mbaye rocc ko def ko ci Abdoulaye jóob xaas xam nga mooy lan demoon nañ ba ñu xeex kër Abdoulaye jóob xaas ngeen di juboojee ku ñu tëj kër Ab Abdoulaye Diop ngay woo affaire yooyu yooyu yëpp foofu la doon xewee léegi yàlla jox daraja jooju Abdoulaye Diop xaas Abdoulaye Diop xaas dem ba taxaw ak njabootam taxaw mu munul munul leen a wax ni toog leen ñooñu di dóorante kurfañ ci moom ana dayo ji ñu ma yàlla mayoon Abdoulaye Diop xaas kan moo ko ko xañ ak lan moo ko nar a xañ am na wala amut ba pare ma wax la benn affaire gis nga ñaar ñu xeex foofu ak ñi doon wax ak yépp manqué wu ñu respect ca Kouthia manqué wu ñu respect Pawlish Abdoulaye xaas la ñu manqué de respect xam nga lu tax ñu manqué Abdoulaye jóob xaas respe tey jii Feeling Dakar yëpp lu xew ci bopp kan lañ koy teg Bamba Diop parce que mooy borom kër gi. mais li tey bu ñu dóorante woon foofu maara day taali nit tëdd ni gàng. Hmm. ci responsabilité responsabilité kan lay nekk ba. ki doon jubóole Abdoulaye Diop xaas déedéet la fait que ñu dugg ci biir kër gi. ñoom ñëpp xoola Diop xaas dafa am lu nekk ci moom loo xam ni. Euh, dox du ko ko gaaw a jox ndax ay ndax ndax laabiiram. Hmm. yaa ngi dégg tey am xoola. képp ku xam ne nii yàlla may na la dara soo jàkkaarloog moom war nga mën a taxaw xam nga lu tax ak lu mu munti doon dafa am lu yàlla bind ci kanamam loo xam ne soo ko gisee rek day ree nuyu tàpp def affaire mais ak lu munti demee nga respecté nit ki ndax këram yow tamit mi nga xam ni kooku sa borom kër la la fekk nga naan kooku respecté woo sama borom kër mm. bul ko jàngal xanaa am loo am na loo xam ne doo am na saar yoo xam ni euh, doo ko jàngal nit xam nga loolu fatxu màkka ba yonent bi ne jullit yi watu leen jullit yi lànk jabar ji ne ko bul tay bii bu leen jàngal bu leen jàngal dara si sa gémmañ jógal nga pratiquer ko bul tëwëri yonent bi dafa watu ñoom ñëpp wat la fait que nga naan nit respecteel sama jëkkër yow wanal res wanal respect bi yow rew am na wala amut boo ko defee du ko def mais Bamba tey bu fi nit ñëwoon Feeling ndakaar bokkul ci biir Feeling Dakar rek ma lay manquer de respect ci kanamu kooku est-ce que dina la jox respect yow boo ma doon manquer de respect man est-ce kooku dina ma ko dina ma ko jox parce que Mbaye Kouthia bañ ko dóoree ci guddi gi laa ni DJ bi doon animé moo may fit kooku ñëw dóor Mbaye Kouthia mais tey man ku ma xool ku fi jóge woon ñëw naan dalay jéem a dóor man man jumboori man xoola nit woote téléphone rek ne Bamba damay ñëw dóor ko damay ñëw dóor bàmba balaa muy départ këram laa na laa naan ka jàmbaar indaaleel keneen parce que ñaar nga fi fekk bala ngaa jaar ci kawam dangay damay jaar sa kaw ba pare xeex boobu ñu xeex ku ko xeexoon sama kër dit am na benn xeex buy régler téeméeri nit dinaa fa def jaloore joo xam ne beneen yoon ku ñëwati sama kër <laughs> ah, di nga ma jox cër par force ba pare xam nga lan moo doon rôle kilifa foofu. Mhm. Abdoulaye Diop mooy jóg ni diw nuyul diw mu nuyu ko diw nuyul diw mu nuyu ko nuyoonte leen mu ne mu ne waaw Abdoulaye Diop daa di ñaan a jeex ni soxna si ana nga mu ne ko mu ne mu ne indil taraanga yi mu indi taraanga yi ñu lekk ko jàmm ni ñooy. am na wala amul. parce que fan yële yéen ñëpp teg ngeen seen bët soo biis bi ñi fi doon xuloo ñi demoon police yëpp mel ab xola est-ce que xam ngeen euh, kër Abdoulaye Diop xaas at bee paase demoon na ba soppaliku maison de justice su suñu borom parce que fépp fu ñuy jubóole ay nit maison yàlla maison de justice am borom xalaat a koy gis xoola Bamba foo gis ñu fay jubóole ay nit boo fa mënee julli julli fa nga ñaan. parce que foo gis ñu fay julli nit toog di fa julli ñu fay jubóole ay nit. billahi wallahi nit a ngi toog fenn foo xam ne ña fay ña fay nas pexe bu jëm ci kaw nit te bu koy lor lay doon yaa ngi dégg moo tax ñun senegale yi nag dañoo amoon ilmu am gis-gis am xam-xam yoo xam ne àdduna bi yépp bàkkee ñu ne ñun bokk nañ ci ñi ëpp xalaat senegaal ak Gambia yaa ngi dégg tey bu ñu demee ba Sénégal ak Gambie nga xam ni ñu xoola boo demee Sénégal boo demee Gambie dañu bu ñu gisee ñag naan sama ñag bi Sénégal ak Gambie ñoo am sama ñag bi sama naar bi ñoom gisoo booy ñëw ñu moom la ah, boo na dañ naan sama naar bi ak sa tubaab bi ñëwagul sa américain bi mais sama sama gambien bi sama sénégalais bi duñ leen ko wax mukk ñoom ñoo koy waxaate kon nan lañu def ñoom ba seen xalaat yeeg seen xam-xam yi ñu amoon seen xel yu rafet yi réer ñu nan lañ def ba mu réer ñu ay nit di dem ci kër nit nga war ko jox respect xoola fekkee ji rek respect la. d'accord mais yéen ngeen dóorante fa xeex ba pare mais dama lay wax ne la ñan nit tamit ñoo fa doon xeex tamit. waxa rek maa ngi ñëwaat ci rek ñan ñoo fa doon xeex question la. waxa rek waaw waaw de Soumboulou bi nga xamante ne bi def na ko seetaan nga vidéo. waaw waaw réaction bi ma gis moom en tant que Soumboulou porteuse de voix man pour man foofu nekk lu woon euh, ni mu waroon réagir ci ki nga xam ne moom mooy Mbaye Kouthia mm. ak Soumboulou réew mi ni ñu ko xamee ak ay paroles yu rafet yi nga xam ne chaque jour daf koy génne ci théâtre yi muy théâtre mu nekk ak àdduna bi ñëpp bëgg ko man pour man foofu nekk lu woon pour corriger ki nga xam ne moom mooy Mbaye parce que benn mënoo nit ki di ko corriger ci écran nga woo ko ba mu ñëw sa kër nit ki lu mu lay te def ci àdduna bu ñëwee ba sa kër te man pour man sax bi affaire bi amee te mu xam mbay comme ñoom ñaar fu ñu jaar ak li ñuy dund wax na ko ko bu déggoon mbay di wax li nga xam ne ci papay doomam da koy woo téléphone ba mu ñëw ne ko mbay dama laa la ba mu ñëw mu fekk ko këram mais du bàyyi ba ci occasion yu mel nii ñu mel ne lu ciy profité dafa xoolee dafay mel ne comme genre deal la bu ñu teg dafa mel ne piège boo xam ne dañ koo teg la xaar mbay ba mu ñëw ñu mën koo waas toroxal ko humilier ko parce que mbay moom Euh, ku gis mbay rek xam nga ne mbay moom mooy lool moom man a su suñuy nag naan siwul du dëgg mbay moom du 100 pour cent moom mën a yem ndax koo xam ne moom ay tuuxi doone rek lay def mais bu gisee mbay taxaw wax lu mel noonu dafa war a woo mbay ba mu ñëw mu ne ko mbay sama rakk nga sama lépp nga te am nga fu ñu jaar même Abdoulaye Diop xaas ma tas ak moom wala ma nekk ak moom ci ay problème waroo koo wax li ndax sama sa sama papay doom la nga corriger ko waxtaan ak moom ba li ngay wax ak moom ba mbay bu ëllëgee doot ci dellu si waat ndax mbay moom ku ne xam ne ne moom moo mën a yem suñu nag nag naan siw lu ne lay wax mais nga woo nit ki devant tout le monde nga ne da koy koy jubóole nga taxaw def ko humiliation ban laa gis xas ko ba mu ràpp wax ko lu ne sa wu bàyyi këram ni ni affaire yi toll situation bi mu am mook Pawlish tam dem xawoon nañ sax ba di ko arrêté kii di sa jëkkër def ci ay jéego ba woo ko këram pour ñëw jubale leen man pour man euh, c'était par le moment ngay taxaw di dugg ci yenn détails yi wala di wax yenn wax yi man yaakaar naa ne sumbulu côté boobu mënoon na doxalee neneen lu dul nii ba pare teg caméra yi mais ana caméra ak jubóole xanaa yow visibilité ngay wut ay nit kuy jubale ay nit da koy woo te yàlla tax gis nga nit ñi doomu aadama yi nañu dellu di def te yàlla tax waaye te bàyyi visibilité bi ak di bàyyi li nga xam ne ne mooy mooy gis gis leen ma bi ba pare nga woo ay nit di leen jubale mais da ngay jubale na lañ fa mën a xeexee waat sa kanam di saagante te yow ñi ngay jubóole yaa ngi leen di pare ko ñun ñu commencé fa di fa saagante ak di fa dóorante. di dolli xar mi karaw. waaw di dolli xar mi karaw te yow en tant que kilifa te yow bi sa soxna di wax yaa ngi koy femmu naan ko déedéet garaawul nga na mbay tase te woon ak yow te bu ma la gisoon dama lay nuyu. ba pare ñi ngay jubóole nga toog te euh, mbay dafa nelaw ci benn côté man nit ki man gis nga nit ki. du ma taxaw. sa di dem foo xam ne waruma faa dem parce que benn moo Pawlish ñoo jote te lan la jotee Pawlish nee na Pawlish moo ko woo ne waxal ma damaa fay léegi mhm. ab bës laa bëgg waxal ma damay jaay drogue man dinaa waxal kenn damay jaay drogue man damay jaay volé volé ba tey benn la rek mhm. tey ji waxal ma damay jaay volé ma wax la après nga dem porte ma ak fu réew mi toll volé di danger ma ne diw day jaay volé même bu dee moom moo la ko wax loo sax boo boo matoon moo tax ma ne la mbay bu doon 100 pour cent rek njaga ko njag mbay mbay njaga wayu ko de man kenn du ma woo di wut promotion ci man di wut bës ci man mais fii ku ku xew da ngay xewi fii benn star moo fi am nañu nangu ana ñoom suñu maam ñoom Alburi Njaay ana ñoom la Joor Joob jamono boobu ñoo nekkoon ay star dañoo xeex ba daanu dooso parce que star dafa am loo xam ne nit ki bu ko ñoddi xew xew yi gis nga euh, munoo fexe ba toll foo xam ne doo xew ba mel na fël-fël benn star moo fi am muy Seydina Muhammad salaahu alayhi wa salaam kooku rek moo fi dul xew wi di nangu dogal xam ne ne jamono bu nekk ak fi yàlla di teg jamono bu nekk ak fi yàlla di samp mais di woo nit ki ko defal ma nangam bu dee sax am na ci la mbay wax ndax ay waxu mbay moom jarut a dóor sa doom man du ma ci dóor sama doom li mu wax ne na Pawlish moo ko waxal mais côté boobu moom dafa juum def na li nga xam ne moom mooy erreur dem bi nga fa demaat ñu lay jubóole jote woon nga ak Ablaye Diop xaas ndax fii palaato bi fii la toogoon mbay sànni na ko ay xeer amul lu mu waxul Ablaye Diop xaas daal di faral ki nga xam ne moom mooy sumbulu ne sumbulu moom mooy nitam te diggante ay sëy sa dafa amul kenn koo fa xam ne danga fa war a farfarloo moom côté boobu sëy boo xam ne nit du dem fu mu warul dem waa nit du dem foo xam ne waru faa dem nga dem fa ñu tuutal la sous-estimé la xas la dóor la fa ci kañ la waroon a jubaleel mu ruj la ba nga mel ne poussière ñu taxaw ñu benn intervention mais man lu ma fay wut mbay dañ koy ruj rek ba waaw waaw dañ ko humilier ba man sama xol bi sax dafa tàng mbay ñu rëj ko ba mel ne poussière yóbbanti ko ay Touba Dakar yu gaaw balaa ñu def intervention ci juboo ku mbay sa xol jeex na man ma ne la damaa toog di jooy dama ko woo ba jotuma ko ku ma ne ko mbay ma diw ne ko mbay amal fu la am personnalité ma ko sa liggéey humiliation fan la commencé sa téléphone bi ngay yot di filmer nit ñi ñu lay xas naan la tànki weex manka ngay ngañ a xoog di jàpp nit ñi di leen filmer ñu naan la ay bu ma ay merde lépp nga jël loolu di ko wane yaa saagalu ca bopp nit ki da ngay am fulla ak fayda mënumaa jël sama téléphone bii di ci di ci liggéey di la filmer nga di ma xas wala di ma wax leneen loo xam ne waroo ma koo wax te mbay maîtriser say parole nga am sa fulla am sa fayda mais adduna bi ku jóg def la miir bu gàtt ñuy nga dem ñu euh, teg la di la jubóole ñu xas na fa ba mu ràpp tegal la ci rij la ba nga mel la poussière ma ne ko loolu pour lan la nit amal fulla ak fayda juddu bu rëy ndey ak baay waaye fulla ak fayda boroom xas la dóor xas la fa dóor la fa tayoo jubóole nga doon indi waaye li mooy bëre la daal ñibbi ma ne ko li mooy bëre daal ñibbi da nga wan ne la nga leen doon wax tey ñu ne la tey tey la jaay laa la fa cere ja ñoree tey li ngay rij ba nga mel ne bàyyi la nga dem mais dafa nekk loo xam ne dafa ëpp ah dëgg yàlla man moom damaa paar man sumbul bu doon maay moom dafay woo ki nga xam ne moom mooy mbay ba mu defee loolu mu corrigé ko waxanteeg moom ci matir bi ñu ko xamee responsabilité bi mu ko xamee mu nekk di nga xam ne ci wàllum aar bi daf cee marqué ay empreinte xam li muy wax mën li muy wax bu doon corriger mbay dafa waroon a woo toog fi dina défendre sumbul naan daf koo bëgg dafa bëgg sumbulu mais bëgg sumbulu tamit warul tax ba mu jotee ak borom këram nga ne dañ ci àjjal paar anamu tey mbay lu muy wax waa koñ ba du tey juboo nañu ba mu dellu mais sumbulu ni mu defee waru ko defee wax dëgg yàlla man dama paar man su ma ko doon conseil dafay woo mbay avant wax ak moom wala mu bàyyi ba jëf seen jataay ba pare mu woo ko yedd ko mais doo woo ay nit ba pare taxaw di ko xas di ko dammat ak di ko humilier loolu rafetul. man ma ko seetaanee pour man théâtre la dañuy tourner ah man scénario laa ko tegoon de. scénario laa ko tegoon waaye bi ma duggee YouTube gisaat yeneen vidéo yi laa xam ne kon lii dëgg la Pawlish sa jotel waaw boobu ba tey nag déggan dégg dégg déggantewu maa ngi bay sax woowu ma ko man mais dama ne lii kon dëgg la. daal <laughs> sa micro loolu kay boo woowee mbay xam nga mbay. yéeme euh, mbay. mbay eh, bala ngaa xam ni wéeroo baax nga toog ci tablier bëgg wéeru quoi ah. comme ça mbay itam eh, liggéey liggéey dafa am eh, liggéey day jaar yoon mm-hmm. wax dëgg yàlla man de man su ma daagoo ba ñëw sa kër bu ma wàccee ci palaato bii mm-hmm. pare naa ci plateau wax dëgg yàlla mm-hmm. mais mise en scène boo xam ne nii da naan kii nañ ko mise en scène ñu